seetaan euh, yegg si leen ak jàmm si seen biir euh, rubrique maternité by Miss seen biir émission euh, préférée matin bonheur donc tey ñu nar a waxtaanee ci naka la ranger li nga xamante ni moom mooy sac à linge sac à linge nag boo koy gis lii la donc li ma leen di woon ni moom mooy sac bi nga xamante ni euh, euh, bu ñuy daal di génn ak seen ay doom boo xasee am doom nag sac yi day li nga daan sañ sewee di jël say sac di euh, yóbbu donc day daal di soppeeku léegi da ngay ut boo xamante ni dañ ci mën a def lépp li nga xamante ni moom la bébé bi soxla range li nga xamante ni moom mooy sac à linge nag yomb na waaye yombul bu nekkee ni maman professionnelle nga comme man léegi moom léegi mën naa wax ne que pas si évident pour ma jël sac bi def ci lépp li ma soxla am na ay situation yoo xamante ni diñ ci retrouver wu di nga euh, xalaat ni que ni waroon naa jël lii waroon naa def lii donc pour que ngeen bañ a nekk si situation bu mel noonu tey dinaa leen expliquer naka la ñuy ranger li nga xamante ni moom mooy sac donc voilà li moo composé suñu li nga xamante ni moom mooy suñu sac à linge donc dañ ciy def couche def ci ay rideau change def si li nga xamante ni moom mooy fowukaay xale bi def si ay bavoir def si lépp loo xamante ni day jëm ci wàllum nettoyage waaye ay soins ak it lekk bi donc dinañ euh, def quatre wala six couches ñu def également euh, sachet séparé couche yu set yi ak couche yu saleté yi dinañ ut benn linge li nga xamante ni moom mooy lingette bi jëm ci wàllum nettoyage ak coton lii mooy huile bi nga xamante ni euh, mën nga ko utiliser pour euh, li nga xamante ni moom mooy feesu bébé bi boo amul crème lii moom mooy euh, eau lavante lii nag moom mooy biberon yi nga xamante ni mën nga ko yóbbu bu fekkee ni xale bi commencé gul diversification wala muy nàmp si ween bi ndox bu tàng sérum physiologique coton-tige ak euh, euh, suppositoire pour les cas d'urgence maanaam bu fekkee xale bi dafa serré ngeen jël thermomètre également ak euh, loo xamante ni mën ngeen ko nettoyer plaie bu fekkee xale bi dafa gaañu. mënoon ngeen ko def sax si genre trousseau bu mel ni ngeen ut body soit ça dépend si temps bi nag moo tax ma leen woon différents body yi ngeen mën a utiliser ak genre tenue de rechange bu ngeen mën a donc yëpp laa jël daal di koy dugal ci ab trousseau boo xamante ni voilà c'est à ای بابوخ chaussettes ak bonnet ça dépend si temps bi aussi bootu wala écharpe de portage jouer voilà lii nag dafay tax ngeen mën tëddal xale bi ci euh, ngeen koy changer pour mu bañ a takkal fenn waaye par mesure d'hygiène day ànd ak en général sax sac à longer ñooy ànd. mën ngeen ut aussi paracétamol doliprane wala lépp loo xamante ni pour wàññi euh, xale bi bu fekkee dafa am tàngaay yaram ak tétine également ngeen bañ ko fàtte ñaari tétine voilà sama sac pare na. <laughs> mu pondér bi mën ngeen ko def directement si bi wala ngeen ut ay dosette bu nekkee nampaloo gis ngeen ni ma ko rangé ci biir sachet pour couche yu saleté yi coton tapis couche tenue pour changer xale bi la également eau les habits lingette biberon yi ndox bi jo yi voilà lépp mu ngi ci biir et voilà <laughs> di leen jaajëfal yéen ñëpp ci teewlu bi ngeen teewlu woon seen rubrique maternité by me li remercier Astou bu baax a baax sama lakkale mën tooñ ba dee di leen souhaiter un très bon réveil matinal à tous au